nañ ko def suba seet dañu ne yuux dana jóge fu ñu ko foogewul ma ni Adji Sarr nee moo gën a yàkkamti moom mii jigéen di ndaw tolli ci vingt ans ñàkk ndey amul benn soutien maa ngi nekk ba kenn ku fi wutati rek di wut per ba ko di ma convoqué ay réunion naan ma féministe si féministe en tant que pour convaincre les 47 pays ici au Sénégal, les 47 pays de l'Afrique, et je suis la coordinatrice du réseau Afrique, Population et Développement. Je travaille sur la condition des femmes. Je lutte pour les femmes et les jeunes filles. te une musli les ci actualité spécialité suis pour justice pour Adji Sarr monsieur le ministre ñun ñu wax président na fexe justice am ba ñu naan justice bi nañu fexe mu leer ndax bi ñu soxlaa ñu jébbal leen suñu collègue dañoo def li ñu war a def pour permettre leen mu leer ñun nag ñu dindi suñu mbalaanu sutura collègue pour affaire bi leer ñu naan ñu dañ koy maslaa kenn du ko fi maslaa na leer fukki bakkan ak ñett ñaata nit a gaañu ñi nekkoon ci kaw di dóor nag ñooñu police lañu gone yi ci mbedd yi lañu dee loolu police la xale ñu jëm nag kooku police la arrête arrête la affaire de Sonko la Adji ñun dañu am intérêt mu leer jël suñu ay risque levee immunité parlementaire Ousmane Sonko mu ni dafa yàkkamti yuux dana jub fuñ ko foogewul Adji Sarr ko maa la gën a yàkkamti man mii nga xam ne mënumaa dem mënumaa ñëw sa vie est en danger nous sommes des parlementaires avant tout nous sommes des politiques avant tout nous sommes maslaa di gërëm nag suñu kilifa diine yi ñoo indi équilibre social nit bu amee jàmm cim réew day war a xam lu ko ko may ñoo ñoo ñu may jàmm ndax ñun dara ci ceddoo ci suñu biir bu ko kenn yee bu nu kenn woo ci combat mortel loolu rek lañ daan dundee bu ñu kenn woo ci combat gladiateur nan ni policierul jaasi de ñooñu tiim di leen tiire xam na ni kooku du pour xanaa xamoo ni police ñoom xam nan ni dañ ñoo filtré xanaa xamoo ni xale yi seen yaram a tàng ndax dara ci ceddo ji ne ci seen biir waaye ba ñu delloo ba lépp sedd xam nan ni dañ ñoo filtré te ñoom dañoo doxe xel xam ni bu ñu jéemee tiire ci ñi leen filtré ay milliers de personnes ay dee jërë ngeen jëf def ngeen li ngeen war a def le président de la république nag ne ko tey jii la gën a am suñu confiance moo wax moo dalal suñu xel asalaamaaleykum wa rahmatullah